Sénégal démocratie la xam Sénégal c'est un pays de liberté et que les manifestations doivent toujours être autorisées gis ngeen ni nit ñi marcher exprimer li nekk seen xol dans la paix et dans la cohésion il faut donc autorisation yi di continuer dégg ngeen li population yi di wax libérer Ousmane Sonko vraiment sa santé est une préoccupation à travers li nga xam ni moom la ñuy lire ci réseaux sociaux yi président Macky Sall da ko war libérer au plus vite mu dellu ci njabootam libérer ko mu mën dem comme tous les autres acteurs politiques préparer la présidentielle élection dafa war doon élection wu ñëpp et le peuple souverain moom rek moo am pour xam kan lay tànn ak kan la dul tànn de libérer le président Ousmane Sonko. J'ai une pensée profonde, fraternelle, amicale, compte tenu des relations que vous connaissez yi nga xam ni moo dox suñu diggante à chaque fois ngeen ko doon gis sama wet ci ay manifestations kon naka président libéré bu ko defee mu mën dellu këram préparer élection yi en tout cas moom la que peuple bi di demandé et yéen a gis seen bopp yéen a dégg ci seen nopp ñoom ñëpp di demander libérer Ousmane Sonko donc libérer Ousmane libérer Ousmane et libérer tous les autres. autres détenus politiques. Merci beaucoup. Merci beaucoup.